Ah, jërëjëf ti mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu mbégte ñu daal di dellusiwaat ak yéen eh, ni ñu ko baaxoo defee saa ne si seen seen YouTube bio Rahma muy seen woo xam ni daanaka dañuy waxtaane lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu bio tey nag mbokk yi li ñu indi bi nga xam ne mu ngi tudd Fatage Fatage saabu boo xam ni dafay dindi lépp lu jëm ci wàllu kanam tache ga ne muy tache boo xam ni daanaka dafa sonal nit ki. ba sax yenn saay ci yaram bi muy taas boo xam ni moom ci boppam bokk na ci lañuy séen ci moom teewul saa su ne moo ngi wuti pexe ngir mbir mi daal di saafara loolu lañu xam moo tax seen cabinet bio rahma seetlu bu yaatu la ñu def xam ne lay sabab lu mel ni bari na waaye dañuy ndaaw saabu boo xam ni la koy dënk bari tamit muy saabu faa taas saabu boo xam ne la ko tax a jóg muy dindi lépp lu dem ci taas ci kanam ak ci yaram yamul foofu ndax yenn saa yi gone gi âge ba moom tax na moom ak ne saa bu ko laalee laalin woowee bàyyi taas bu ñuul moo xam ku ñuul nit ku bu xeesee nag si la koy gën a sonal ndax dafay doon lu fës ci moom teewul dina wuti pexe moo tax seen cabinet ma indi la savon fatas muy saabu boo xam ni mën nga ko am ci cabinet Biorahma muy saabu boo xam ni moo ngi jar <clears throat> mille cinq cent francs ak mille cinq cent francs nga am sa savon fatas kon yow mi seetaan ak déglu ak ne taasu kanam picc moo xam nga ñuul nga xees fu mu mën a nekk wooteel ci 77 244 80 05 nga daal di mën a am sa savon fatage di jaar 1500 fii ci cabinet bio Rahma téléphone bi min ngeen ko xam ngeen ko 77 244 88 05